ak mooy la mu neex nit ki sëyoo ci forcé jigéen ji duy woor woor boo xam ne du fay ramadan wala du ramadan day woor ngir ñaati ngir ndax loo borom këram sañ na ko ne dogal sañ na ko dogloo bala ko defit war na tàggoo waaye bu dee woor sarafa moom war na di jéggalu ñaari waajuram moo xam ñuy dund la moo xam jógee nañ fi dama xalaat nag bu ñu ci jógee bu ñu ci jógee moom yoon teg na la nga di leen ñaanal njëggal nga di leen jéggalu suñu borom waaye nag bu dee yéefar lañu woon te dee daga nañ nga jéggalu leen daga nañ nga ñaanal leen parce que nekk ñoom ci lislaam moom ba faatu daga nañ gannaaw ñu faatu moom daga nga ñaanal leen wala nga jéggalu leen waaye itam laa biire su bépp mbokk waaw loolu moom war na si bépp jullit tam boo xam ne rek xamal nga kon koy jëriñ yoon fekk na la nga xamal nga ko bu ko xamul war nga koy laa biire waaw li ñu wax nag ci la rafet yi mooy jàpp mbokk yamul ci nga baay wala ci nga bokkal ndey wala ci nga bokkal baay képp koo am loo bokkal moom rek war nga topp ko mbokk googu war nga ko dox nan nga koy doxee loolu alquran ak xadis ak ijmaa ummati ak ummati ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ngir jubal yàlla ko sëñ Yusuf Rahima képp jëm yàlla jëm gis bu mu na jot na topp ko ak mboqam te bu mu ko sàggale jot mboq fu mu tàmbalee ziyaare day visité dem toog boo amee mboq boo toogee ba mu yàgg bu la ko soog jot maye yoo teg na la nga dem nuyoo moom toog waxtaan ak moom ci këram dem moom itam noonu la kon ziyaara bi daan wax fi mu yem naka noonu bësbul maali li man ixtaaje nga oomal suñ borom dimbali la nga am dara mu ñàkk yoon teg na la ngay yëkkati di ko jox di ko dimbalee bañ koo seetaan ndax boo ko deful seetaan nga ko te kon bu ëllëgee dañ la ko xàq boo xam ne da nga ko ko fay ci sa tuyaaba boo ko deful ak wax ju rafet seen diggante foo fekk ñu teg ci dara lu jaaduwul taxawal wax du ko dindi taxawal sang deram taxawal rafetal ko la ngay laaj mbiram lu mu nekk mbaa mu ngi ci jàmm la diw gën naa ko fu nekk bokk na ci silatu rahim boobu te xaqam la joo xam ne boo ko deful bu ëllëgee bu ngeen ko layoo mu looy na kon war ngay laaj ba xam lu mu nekkee ndax mu ngi ci wér wala nekkul ndax mu ngi ci lu dëng wala mu ngi ci lu jub na muy doxalee ndax juboo naan ña mu nekkal wala jubóowu la ñoom wa bi safi an zallaatihim njuumte yi ñuy juum di la teg lu la naqar wala ñu di la ko def da ko war a jéggal saf ko la ñuy wax nag saf ko ak afu bi ñu benn jéggal ñaar la al afu ak ak saf al afu mooy nit ki def na la loolu naqari waaye doo ko topp waaye nag foo jaar naan diw de lim ma def bu ma ko toppoon diw de lim ma def neexuma kooku mooy afu saf kooku gën saf mooy lan nan ko fàtte buñ waxee li si jëm sax bàyyi yooyu amul solo waay waaye bàyyi yooyu waay kooku mooy sax moo am tiyaaba ji gën a màgg dëgg dëgg ak a war na ci yow nga wax ci moom wax ju rafet bu keneen waxee ci wax ju rafetul waruloo ca ànd te war nga koo défendre lim la tooñ mu tey ko teyu ko war nga koo jéggal te koo jàppee xam ne it dana am ñeneen ñooy teel te ñoo ne it mën nañ la koo topp ëllëg te lii ji koy sang dëgg mooy doo tooñ kenn nga wattandi ko boog la nga mën ku la tooñ nga jéggal ko ndax tooñ lu mu metti metti ci la bi gën a amee tuyaaba te nit ki daal daañu ko téye foo xam ne jéggale rek tax ñu jéggal ko suñu borom nag danaa yonent bi saa sama nee na ku jéggale suñu borom jéggal na ku yërëm ne suñu borom yërëm la yërëm leen ñi mooy suñu borom tabaraka wa taala suñu borom nekkul te mënul ne mu ngi fenn waaye mu ngi ci asamaan ay wane ne dafa nu féete kaw rek ci maanaa ba suñu mbir leen ko ndimbali tam war na seen diggante boo mënee te mënul bu bu tëlee nga mënam yoon teg na la nga dimbali ko ak nu ndimbal la mën a toll bul yëkkati ndimbal mukk romb ko di dimbali keneen te muy sa mbokk waaye nga itam bu fekkee ne seeni dëkk yi ngeen nekk soo yoonoo war nga koy bind di la bind ngeen kenn ku nekk xam li mbokkam bu fekkee ne sore ngeen sore boo xam ne bind rek ngeen mën a waxantee waaw suñu borom dana mën sa teew ndax nit ki visite bi maanaam ziar bi mën na yàgg mën na cee loru benn daf lay rus gis ndax toogoon melam wala sa teew tiis ko ndax dana la rus rus koo xam ne boo teewee dana metti ci moom dana yàkkam ci nga dem yooyu yëpp lu ñuy seet la wala yow sa bopp ngay loru ci teewaan ni ki na muy jëfe ak na mu mele xajoowoo ko sa teew benn mu di ko loru wala yow nga di ci loru jégg yoon jéggal na la nga bañ a teew nga di gisanteeg moom nga di jokkanteeg moom mbokk ci yeneen kanam yoo xam ne du caa génne mbokk teew du caa génne di gise ko ba ci yónnee yónnee ndaw boo mënul teew bu amee li ko neex war nga ko ndokkeel ndokkeel sa mbokk jaamu yàlla la bu fekkee ne am na lu ko neex nga yëg ko xam ko mën koo mën koo ndokkeel si lépp moo ko xàq jooju na la koo laaj ëllëg sax suñu tiflee sax mu ne alhamdulilahi rabbil alamin yoral teg na nga ne ko yarhamukallah ba ku fi jógee seede janaasa maanaam dem ci robam dem ñi nga xam ne noonu la jaal bi ware noonu la dem ci dëj bi ware bu fekkee ne amuloo du la gàllankoor xàqale joo xam ne moom bu ko neexee bu ëllëgee mën na la koo làq mën na la koo fayu te bu keroogee dala koy fay te amuloo lu sa tuyaaba dala ko fay tuyaaba ci sa tuyaaba koy fay war ko wattu su teewee ak su fàddoo wattoo teg ci dara lu ñaaw wattoo waxtaanee